dàmbooj kuy wër dëkk ci moom ngay dem root dëgg sangoo dëgg naan dëgg doon dëgg muy dëggantaan Abdou Karim Xurum Xaq sama live na nga ko déglu na ko seetaan Abdou Karim Xurum Xaq ku ne dàmbooj fenkat la yow yaay fenkat fenkat du défendre nitu dëkk fenkat du xeexal askanam fenkat du teg coalition ba mu neex ko ne damay dem yeewi askan bi fa dëgg lal ku lal dëgg dara bu dëgg ñëw nga lal ko dàmboo darab la ba nga xamante ni lalu dëgg lay wër leewi askan bi mooy lalu dëgg dàmboo jël na darabam nee na lalu leewi askan bi la koy lali Abdou Karim Xurum Xaq boo tëggul ca lalu dëgg ba kay bàyyi ko borom Abdou Karim Xurum Xaq dégloo ma xel te bañ ma dégloo xol dàmboo ku ne fenkat nga yaay fenkat te yow nag yaa ngi bëgg sikk nag Abdou Karim Xurum Xaq parce que ka yow Fuuta Tampi fii la génn wax ci waa kilifa yi nga xamante ne ñoo ne ànd sàmm jikko yi saaga wax ko neex Abdou Karim Xrum Xax nga toog ne pat di ko défendre foofu naa fekk nga samay dëgg ah. foofu naa fekk nga Abdou Karim Xrum Xax Guy Marius Sagna fi la woon ñàmbarte bëgg Sénégal bëgg askanam mu jaral ko lu ne nag jaral ko ñu poisonné ko jaral ko lu ne yàlla dëgëral ko taxawal ko samp ko ne ko doo daanu ndax man yàlla maa la samp ndax ko dëgg man nga àndal Abdou Karim Xrum Xax Guy Marius Sagna ñu jëndal ko oto parce que da raw Abdou Karim Xurum Xaq ngay sikkal Guy Marius di ko xas di wax Abdou Karim Xaq foofu soxor la ñaan la bële naa fekk na mais bii soxor la iñaan la Abdou Karim Xurum Xaq ku yàlla yàqul boo ko bëggee yàq yaa yàqu Abdou Karim Xurum Xaq arrêté yi ngay def ñun mënoo tax suñuy noon reeñu ndax ñun dañoo pare démb tey ko dikk kon yow mënoo tax suñuy noon reeñu Abdou Karim Xurum Xaq kilifa fii la toogoon tam nga nga nga ko ŋàññ bu yaa sikk te nag yaa sikk nag Abdou Karim Xurum Xaq ku iñaan nga ku iñaan nga ku soxla nga te li tax ngay wax si vidéo bi ma dégg li tax ngay wax gëstu naa ko xam naa ko gëstu naa ko xam naa ko kon yow xeex bi ngay xeex naka ne intérêt personnel moo la ci dugal da nga wane jëfe nga ko li tax ngay kaas di wax ci dàmbooj parce que yow dàmbooj ak coalition bu ne day dem ci yewi askan bi ndax askan bee tax muy xeex am na li am ba pare askan bi lay xeexal moom dàmbooj kon dàmbooj boo demee ci dàmbooj ne ko carrément dàmbooj ne la yeewee askan bi la ñuy jëm wax ak waa coalition ne leen képp ku dem di di di wax ngir sonko wala ngay wax askan bi di xeex di nekk ci yeewee askan bi buñ la bëggee sonko moo tax. ku lu ci bëgg te sonkoo tax wala ku ci nekk am mbooloo te sonkoo tax nga dem bay jayaxu di jay sa bopp ba génnaat ci boo ci géntee mbooloo du la topp boo génnee booloo du a topp ndax ku ñu topp sonkoo tax ñu topp ko ba ci man dàmbooj dàmbooj mooy gor mooy gar mi dàmbooj moo taxaw mu ne man sonko moo tax ñu ma sonko moo tax ñu bëgg ma te tey su ma génnoon ci sonkoo su ma génni woon tey ji ci Yewwi Askan Wi ñu ba kon kon ko man Dame Mbodj coalition bii nga xam ne askan bee ko fi tax a taxaw ci askan bi Yewwi Askan bi laa jëm Abdou Karim Xrum Xax ak am ñoo xamante ne dañ ne déedéet bul dem muñ na la mu leen Sonko du ma rejeté ndax dafa woote Yewwi Askan dañuy liggéeyal askan bi te askan bee ñu tax a jóg Dame Mbodj dem ñu accordeel ko yow Abdou Karim Xrum Xax nga ne damaa bëgg nekk député Dame Mbodj ne la su ma sañoon dama lay conseillé mënoo nekk député su ma sañoon doo taane député Abdou Karim Xrum Xax yow amoo xam-xamu député amoo personnalité bi amoo dignité bi parce que Abdou Karim Xrum Xax borom ñaari wax du nekk député borom xeexu personnel sa intérêt personnel du nekk député sa xeexu personnel ku koy def waroo nekk député Abdou Karim Xrum Xax député boo jàngul sax mënal wax xam wax jëlu sa wax ñu teg ko ci xam-xam déggoo ma de Abdou Karim Xrum Xax même député boo jàngul soo waxee ñu xam ne kat kii ku ibbi kaye fekk ko fa ku ibbi Abdou Karim Xrum Xax nit da ngay tey dal jàng wax xam wax xeexal sa askan gis nga ne bëreet bëreet yóbbul yóbbul ndab bëreet yóbbul ndab ndab xel a koy yóbbu waaye du bëreet du doole xel moo yóbbu ndab Abdou Karim Xrum Xax assemblée du n'importe qui Abdou Karim Xrum Xax assemblée du n'importe qui Abdou Karim Xrum Xax assemblée xam-xama fay dugg ak diine ak yar ak teggin ak xam ne ngay waxee Abdou Karim Xrum Xax ku yaakaar ne assemblée Macky Sall diplôme 4-4 sàcc ak def lu la wax lu la dugg fu la neex gën fu la neex ku koy yaakaar ci assemblée Yewwi Askan Wi nax nga parce que askan bi caaxaanuñu defuñu soirée de gala bu boowuñu ay diriyanke dañuy liggéey askan bi dañoo jël dëddu àdduna na le teg bànneexu àdduna fële teg lan mbégte xale yi. ak dëkkër bu xam ku ciy dabu sa ndaw bëgg ko daboo ci ensemble bi perte nga kuy dabu sa ndaw bëgg ko dabu ci député perte nga ku yorul oto bëgg yor oto député di ko diitaroo perte nga ak dëkkëram xam xaq fii ku fiy nelaw léegi yeewu nga kon yow da nga fësal sa bopp dangaa fësal sa bopp parce que wane ka nga ni yow député jóg sa intérêt personne moo la tax a jóg askan bi taxulaa jóg kon weeru nga parce que tamit nag man de xaw ma kan waaye man man suba su ma xëyee maa ngi ñaan di ñaan naan képp ku nekk ci Yewwi Askan bi di def na ko sudul noonu wala di fiital Macky Sall yàlla na la ko yàlla xañ te nag yéen a ngi commencé weeru ah yéen a ngi commencé fuite yéen a ngi commencé ak ah, doomu aadama buy gëm yàlla doo demee doo demee sa sa tertu bakkan doo demee sa tertu bakkan yow dama defe ne li li naqadi réew mi moo waral naqadi Askan bi ànd sama jikko yi ak suñu kilifa yi ak ñeneen ñi li ñuy daj yaakaar naa ne ku leen bëgg sauver doo xool ah, neex ku leen bëgg défendre doo xool neex-neexu àdduna ku leen bëgg défendre dangay demee sa xel ak ngëm yàlla ak maanu ragal yàlla yërëm leen te yàlla tax Abdou Karim Xrum Xax yeewi askan bi askan bi dañoo sonn di wut wàllu wutuñu ay kaay jël oto bi di tiitaru wala di mballu wutuñu oto bi kaay kaay jël oto bi di di di tiitaru di di di di jaay jomma ñaaw Abdou Karim Xrum Xax Abdou Karim Xrum Xax bañu ma la nag dama la yedd conseil la sama kàddu yi dee ko dégloo xel bañ ko dégloo xol ak ku ma mënti doon attaqué wu ma la tamit nag dama lay wax dëgg yaa ngi ñaaw njort ndax yeewee askan bi dinañ la tànn député Abdou Karim Xrum Xax fii lu fi waay di dagg lu ne te du sa wërsëg doo ko am nit ki togg na añ ba pare war koo lekk dee ñibbi ji bar sàq te lekk ko ndax lan du wërsëgam Abdou Karim Xrum Xax nit jënd na tabaski ak njabootam ba pare war koo tabaski rayal leen ko dee rayu ko ndax lan du wërsëgam Abdou Karim Xrum Xax nit liggéeyal na doomam bay bëgg a dee doomam màgg war a tekki defar ko yóbbu ko màgg ba jox ko yàlla ànd ak yàlla Dame Mbodj mënoo koo yàq ndax yàllaa ko defar ci dëkk fii ku fi yàq nitu dëgg yàllaa lay toroxal ku weddi laaj Ousmane Sonko ku weddi laaj Ousmane Sonko ba ko Macky Sall bëggee toroxal yàllaa toroxal Macky Sall Abdou Karim Xurum Xaq sa audio boobu ak sa euh, vidéo boobu doo ci am nam ay noon nga ciy am dangay fay dangay daanu yow Abdou Karim Xurum Xaq boo ne mën nga yàq Dame Mbodj yaay yàqu gis nga sa sa lien bi nga dugal def ko def ko def ko vidéo vidéo boobu moo lay fay nag ba faw Abdou Karim Xrum Xax Dame dafa dem ci Sonko looloo ko metti looloo ko metti parce que nga defe defe ni mënul nekk député kon moom moom moom Abdou Karim Xrum Xax député am nekkate intérêt la woon kon xeex bi moom intérêt la ko jëlee Abdou Karim Xrum Xax mënoo fee yàq kenn ba nga défendre Fat Ndiaye Tampi ba nga défendre Fat Ndiaye Tampi ci la xel yi raxasu ci yow ci la ci la ci la ñëpp xamee ne yow ça ne va pas Fat Ndiaye Tampi en tant que saaga leen wëlbati ko saaga eh, eh, MC Niass nga wëlbati nga ne dangay défendre eh, ab Fouta Tampi sooy bëgg a yàqule fu yàqu ngay dal sooy bëgg a yàqule fu yàqu ngay dal gis nga xale bu amee yar am teggin am nijaay ju baax day yem balaa wax laaj nijaayam ak Abdou Karim xurum xàq accusé wu ma la nag damaa laajte ba xam parce que man lu may wax daf may leer lu may wax daf may leer